<laughs> <laughs> je m'ennuie nag su ma <laughs> les idées noires tournent dans ma tête su ma moi en tout cas je suis contente El Hadj maa ngi lay gërëm mm-hmm. donc tu as vu nous tous on est euh, là. quand on a appris que tu venais tu vois. parce que loolu yëpp mooy wane fi ñu la teg et euh, puis comme si c'était un jury on attend le juge qui <laughs> vous êtes des personnes yoo xam ne su ma gisee si yéen quelque chose boo xam ne bii dafa yegg ci benn niveau du ma bett mais en même temps ça me fait extrêmement plaisir parce que je me dis que bon ça c'est la confirmation de ce que j'avais vu par li ngay def nii yëpp c'est c'est ce que j'avais vu depuis que tu enfant je me rappelle bi ñu def concert yeewu yeew yi. Mhm. ci trappé beneen ñoom Boy Morse bi seen Mandela. waay waay Soweto Soweto bi. Mhm. je jeune. tout jeune avec cette assurance et tout ñoom Awa Sène Sarr ñoom ñëpp bëgg mhm. ba léegi je vois donc je sais que continuité c'est une y a une logique. waaw c'est une logique de de de cette carrière quoi. moom laa doon keroog manié. donc bon waykat yi bëri nañu ainsi de suite je pas te mettre dans un certain lot et certain truc mais en tout nga xam ni. yàlla dafa la jox benn carrière très singulière très différente de beaucoup d'autres carrières et tu es en train de l'assumer tu le avec nag ses hauts et ses bas ses problèmes ses comme ça mais toute grande destinée noonu la mel toute grande destinée tu gars c'est ça qui te forge et je vois que ça ressort ci ci émotion voix bi ci musique bi ci sur la scène ci yëri ci kii beeg yooyu et tu le temps de le faire de le faire bien c'est ça l'essentiel moi je tenais Euh, cet album pour plusieurs raisons parce que yow suñu suñu papa nga man en tout cas yaa ma yar voilà te aw ma benn mauvais souvenir ci sama jaar jaar ci yow au contraire tu m'as boosté parce que j'étais très timide <laughs> ah, may xëcc pour pousse ba ma dem way ci scène bi et tout ça taxawuma jàppale ma et tout ça donc loolu nekk vraiment un souvenir boo xam ne boobu ba tey loolu laa gàddu. et puis saa yu ma saa yu may lu ma mën a def yaa ngi fa looy def yaa ngi may woo loolu bokk na ci raison bu njëkk bi beneen bi aussi ton avis pour moi pour cet album qui est un album très très très très différent tu verras mhm. très surprenant parce que ça va surprendre peut-être beaucoup de personnes pas que je sais faire quelque chose comme ça mais pourquoi ce changement ou mm -hmm. voilà parce que personne ne va s'y attendre euh, donc loolu mooy raison bi mais beneen bi aussi parce que yow sa avis am na solo ndax sa xam-xam ndax aussi sa liggéey parce que j'ai suivi récemment Black Panther c'est une fierté mm. quand on voit blanc et on entend Black Panther et qu'on dit que ils disent les Américains disent qu'ils ont été inspirés par le Sénégal mm. par la voix d'un chanteur sénégalais d'un grand chanteur sénégalais mm. moi je suis fière de me dévoiler de dire oh je viens de là-bas je le connais <laughs> je le connais c'est mon papa c'est un grand artiste de chez nous donc pour dire kon nit boo xamee kii koo xam ne fierté la da nga ciy am fierté. te yow suñu fierté nga te mënuma woon a def lii te ñëwoo joxe ci sa xalaat wax ma ci sa xalaat jox ma ci sa bénédiction. et la raison aussi c'est que la chanson aussi euh, principale pour laquelle je voudrais ton avis est une chanson de ton terroir. même si je suis Alpulaar parce que je suis Gawlo. tu es Gawlo, ah oui, bien <laughs> sûr. te présenter en résumé l'album c'est un album vraiment que j'ai qui m'a été inspiré lors de mes sorties euh, dans le Sénégal des profondeurs. depuis deux ans vraiment j'y travaille et quand j'allais avec les Nations Unies en sortie dama gis ni Sénégal richesse bi nga xam ne moom la ñu am ñun malheureusement ñun utiliser wuñ ko xamuñu mhm. valeur li ñu am ñun mhm. xamuñu valeur suñu aada suñu cosaan dañuy dem rek jël ci biti mhm. alors que fii am nañ fi ay richesse extraordinaire te présenter en résumé l'album c'est un album vraiment que j'ai qui m'a été inspiré lors de mes sorties euh, dans le Sénégal des profondeurs depuis deux ans vraiment j'y travaille et quand j'allais avec les Nations Unies en sortie dama gis ni Sénégal richesse bi nga xam ne moom la ñu am ñun malheureusement ñun DPV utiliser wuñ ko. Mhm. ñu am ñun. Mhm. xamuñu valeur cosaan dañu dem rek jël ci biti. Mhm. alors que fii nañ fi ay richesse extraordinaire regarde Black en Afrique. retourner à l'Afrique. prendre les cultures les coutures les couleurs les tenues de l'Afrique te solee fii ñu ne kii de dafa dof léegi xoolal yi muy sol rek. Ah, ma mère me raconté que une fois dafa am benn euh, artiste boo xamante nii dafa yàgg Europe. muy ñibbi si fii nag def ay rasta rasta yi bi mu ko defee lépp nag mu sàdd ci ay per xam nga miray yooyu nga xam da ngay def ay per daf fee xewoon mhm. nee na kooku nag dafa biñ bopp bi ba mu fee dend ak i per nee na ñëw wutal si leen soraanoo rek yi am ku ci ni moo faat per ba fees dell ko ndax <laughs> per boobu mu ne ko kii de ki jiw la la nekkoon day tëgg sabar <laughs> mu ne ko lay lay ki da xamul li ci dëkk bi. <laughs> mais pourtant léegi Black Panther yooyu la ñu def. pour dire ñoom xam nañ seen valeur. moo tax nag man bi ma demee dem Sénégal des profondeurs. à chaque fois quand je faisais mes tournées je voyais bu ma ñëwee nit yi. niñ may teeroo di way di mm-hmm. fecc. ma mel ni ab président nag. <laughs> mais liñ may teeru li ñuy way dafa nekk wayu dëkk ba. Mm-hmm. après moi à chaque fois ça m'étonnait ma ni mais lii fan la jógee ñu ne ah lii wayu dëkk bi la mm-hmm. folklore dëkk Et du coup, j'ai appris. Mhm. Ce qui fait qu'à chaque fois, quand je rentrais à Dakar, me dit la fille pour vidéo et je regardais les vidéos défiler. Les chansons, les unes des plus belles que les autres, mhm. plus harmonieuses que les autres, plus mélodieuses que les autres, et puis avec une fierté. Mhm. Bon, mm et puis quelque chose vraiment de rustique, d'authentique, de, de, sénégalais, d'africain, de profond. Mm -hmm. Et du coup, je me suis dit, c'est ça qui va être mon prochain album, c'est ça bien. qui va m'inspirer. Ah oui. Salif, Salif va être très content. Ah oh. Ah oui, c'est génial. C'est dommage s'il était là, je l'aurais appelé. Salif, non, ouais. mais c'est tout Salif <laughs> va être très très content de voir que euh, vraiment tu sais, mës naa ñëw kër euh, Papay Toumani. Mhm. Papay Toumani Diédou Toumani sama xarit la ñu yegg si seen kër booru tàkkusaan ma ñëw Papay Toumani di encourage ne ma su ma la gisee sur scène wala ma dégg li ngay way mm-hmm. sama xel day dal ci ñun li ñu gëm mm-hmm. dina am ñu ko continuer mm-hmm. mu am lu mu wax ci tumaandi lu bari mais mu wax mais mais mu ne ma yow maa la ñaan ñaan nga continuer li nga li ngay def parce que loolu suñu génération bi dañuy dañu dañuy soxla loo xam ne ni ñun ci liñu li ñu gëm ni ñu fekk ñu koy def lu xam ne dafa war a kii dafa war a tas àdduna bi naam ñu ko yeggale mais lii di surtout Salif bu ko déggee dina xam ne liggéey bu mu liggéey ça n'a pas été en tout cas félicitations maintenir boobu ci fin bi mmh. en tout cas félicitations. merci félicitations aussi les musiciens. <laughs> merci mais eh, le professeur a signé a signé a signé.